الصباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر baax a baax a baax ci xale bi suñu borom may fekk war bu toogaa ñi di ko waxtaanee

di wax ne suñu mbokku taalib yi di waa Lamp Fall Cité Diabète ak waa euh, euh, Xidmatul Xadim dañoo ñëw sax ñuy waxtaan ci wàccaay liggéey bi te bu fekkee jotaay bi ñu ciy santaat bu baax di wax ne ñu ngi leen di saaraat bu baax daayira mu Xadamatul Xidma section bi su borom daa dogal ci wàccaay mag bi nga xam ne ba léegi ñu ngi koy waaj euh, ba jekk ci lool sax ci santaat borom Tuubaa bu wér ndax ñu amul ñaar benn lañ loolu dañ ciy sant bu baax waajoon nag ab liggéey boo xam ne waajoon nag lu jëm ci màggal bi ci borom dogal ñu toll ci euh, fas yéene di ko di ko di ko jëm at yi yoo xam ne waxoon naa ne ngeen xam ne ko waaye leneen doon di ko at yi des ko xeeb muy loo xam ne am nañ yéene bu ëpp loolu incha allah ci kàttanu yàlla euh, loolu képp euh, saa su nekk loolu ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ci wàllu li ñu waxoon ne moom la wàcc demoon ci wàllu ndox mi ñi ah, bi nga xam ne nag moom lañ fas yéene joxe rek mu toll nekk ci benn million waaye bii am lu ñu def ba tax na euh, combat yi def def ci awal waaw dañ ko téye rek mu toll ci euh, téeméeri junni ak juróom benn ndax li ko li ko waral mooy li ñu def waaye million lañ fas yéenoon indi incha allah te yéen boobu ba léegi ñu koy am ndax euh, bi fiy jógee bi fiy jógee fii ñu toog bi ñu nappee bi ñu joxee addiyee daaw bi ko joxee bi ñu bi ngeen génnee rek lan na déwén moom incha allah li ko waral mooy euh, fii fii ñu ñëw ñu dafa liggéey bu tedd ki suñu lépp day suñu lépp ànd koog nag joxe suñu ñaq joxe lëpp lu ñu am fas yéene liggéey bii ñu jëm ñu ñu defal ko bi kawe suñu jot liñ naan tedd gi kattanal ñu ba niñ ko bëggee ñu amee ko noonu jotaay bi ñu àndal ci ci góor yàlla ak ci soxna ñëpp am na ñoo xam ne sax ñu ci yoon bi yegg see boobu ñu ñaan suñu borom teg nañ ci yoonu jàmm incha allah ci kattan yàlla waxal bagage euh, li jëm ci wàllu ndox mi mi ngi toll ñaari junni sase ndox euh, ñaari junni sase ndox moo fi ñëw ak lu toll ci euh, juróom fukki carton kanak ñu jëm ci wàllu poisson ak lu toll ci Euh, juróom-benn fukki butéelu juróom-benn fukki butéelu kii juróom-benn fukki mooy ñeenti téeméer mooy mooy 400. waaw 300 300. waaw ñetti téeméeri butéelu Evian yoo xam ne waaj nañ ko indi ak lu toll ci euh, ci wàllu ndawal ay euh, xaar ak ginaar lu jëm ci liggéey ba. waaw ñu ngi tubaab bu baax dañoo mënewul nag <laughs> di di wax liggéey fu toll ndax dafa mel ne. Euh, bu gën a daal mu gën a mu gën a mu gën a yegg ñu ñoo ko gisandoo ni téeméeri junne ak juróom benn fukk defuñu ko ci enveloppe ñu ngi jëppal nañ ko di wax ne nag ñu gën a laxasaayuwaat di gën a laxasaayuwaat ndax ñii suba ngoon dégg bëccëg fii fii fii la nekk di ay kilifa waaye gis ngeen dañoo bàyyi lépp ñëw ne ñëw ñëw nekk ci jumaa yi ñun soññ bi ñuy soññ ci liggéey bi li ñu dénk ñu war kaa taxawee taxaw ci kenn ku nekk ci ñun fexe ba waxuma la dara waaye njuum de sax bu ko ci def incha allah ci kàttanu yàlla ñuy ñaan ngeen ñaanal ñu daje sa euh, ngërëmal sëñ bi incha allah. jërëjëf ñu tudd baax ci kàddu jaxasoo yi. Gracias. nag bu baax di leen gërëm ci fas yéene bi nga xam ne yàgg ngeen ko am lool ci liggéey bi teew bu nekk ñu gën a yeesaat ci gis nañu taxawaay bu baax a baax nag dem rek di gis gis nañu woote woon ñu ay te garab bi ñu ñëwee la ngay indi woon la nga wax sax ne yàlla bu baax li ngeen indi baaru fekk seen wàccaay màggat waaye nga ne woon déedéet waaye la nga waxoon yëpp tey di fay ngir gën bett nañu lool ndax jigéen ñi ñu yeena yitte yi bari na te toog nañ jamono joo xam ne jamono yi nawet la daanaka tàkk na ko doon def waaye ne bàyyi ma nag moom xol yi nag boobu dugg na xol yi nag des nañ waaye jàpp kon yéen ñuy wane leen seen xol nangul na seen xol bi nga defee ñëw ak seen jëm taxawu si baax ñu ci boolee rek seen i ñax ñu ngi yëngu di ko defaat ci biir liggéey loolu leneen waaye nag sëñ Tuubaa moom ngeen rek waaw sëñ bi dara wax na Cheikh parce que moom moo am ñaar sëñ boo ko doon rek boo ko doon rek boo ko joxee dara diir la la defaral ko waaye soo ko joxee sa lépp jël sa lépp defaral jox la ko

xanaa rek di leen wax ne baa ngi nii suñu kanam dañ ko def dañ ko song rek lépp parce que ñu ko sëriñ ko suñu kàttan rek koy nelaw xaj bu ñu ko doon a xaj ak liggéey àdduna xaj dañ ko def lan rek demee ba woote sant yàlla sant ñu sant sant sant la loo yàlla rek nañ ko sant bépp sant nag jëf la loo xam ne jaaxle naa la def suñu rek waaye ñu waxale ñu am ay yàlla santaane ne ñëpp ñu sant la ñu sant nag jaam yàlla yi loolu nag bu ñu ci yàlla boole jàpp boobu dañ ko jàpp gën a gën a kon ngeen jël wéy leen rek léegi gees ko kenn wéy leen yoon waaye yoon bi daal du ñaaw yàgg-yàgg jantu dara fati woo gis woo gees woo yàgg-yàgg rek àgg nag mooy li def foofu laay teg yow incha allah daf daan wax ne ak jafe na lool nee na du du nii dara ko ci wàll mooy tool yi la tuwoo bare dama doon ci topp la sax ak la sax bi nag bu demee ba doon daal taw li ko wat la ruus ak buñ koy boj la fa ruus dal buñ koy soq la ko sa buñ ko mooñee la la lañ raxas ko ak buñ koy tayee la des ci ko ak buñ ko defee ba mu doon fiyaay ba ñu mën koo lekk wala mu doon ko laaj ba ñu mën koo lekk ndàmpé la resté ndàmpé war ko war a xas ba dëgg ci jiwu ñi sax da ci booloo lañ liggéey mu ne dara am ci kanam waaye ñu xool ñu gën nañ dox ñu ànd ak yar ànd ak teg jikko ji waaye dañ mën a fekk ci waaye yu bari mën a bàyyi ci li ñu war a teg war noo bàyyee mooy am yar moom day nekk ak taalibe boo xam ne mënu xool rek defal ko kon nag mooy liggéey la boo xam ne ñëpp nga xam ne ñëppee nag mu ne ni fi mu ne la faat mu ne la صباحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر صباحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر